dal leen ak jàmm ñu xëy taaxaan xëyandoo tàmbale ko Sud Quotidien bi ne naka lu doon jaay léegi mu lamboon direction générale des élections moom nag daal dinaa joxe verdictam gannaaw bi nga xamante si gaañ a déposé nañ ngir war a bokk ci élection législative yi validé non liste naka ak candidature législative anticipée yéene bi ne maa leen di wax liste yi nga xamante si moom lañ daal dee toll nañ ci ñeen fukk benn yoo fan boo xamante ne war nañ caa mun a def ay recours ngir rek mun a bokkaat naka ba seenub ak ak yelleem yéene kaay ne 24 heures naka chrono yéene bi ne ñi am recours contre Ousmane Sonko ndax jàpp nañ Ousmane Sonko moomee yoon mayagul ko mu mun a bokk ci yooyu lay élection moo tax nag ñu xaatim ab recours dal di koy dugal ngir rek fexe ba Ousmane Sonko ay mbiram ñu dal di koy leeral ci élection yooyu libération yéene di ko fintoon yi gën caa tuuti ñeen fukk ak benn liste yoo xamante ne fintoon nañ te mënees nañoo bokk ci élection législative yi juróom ñett nag lañ dal dee te sa ñoom sax juróom benn yi d'office ñoom recours mënu ci ñoom dara li kenn mënu dara kay mooy ubbi tey jàng tey bi nga xamante boobu ak léegi ñu ngi koy wax daanaka te na fit ci école yi niki démb gune yi ñoo waroon a jàngi ubbi teef boobee nag daanaka am na suñu bëri ñoo xamante ni loole moom xaajul bay mën a ne Le Soleil yéen dikkaat ci bataay yi nga xamante ni si daanaka booy xool moo ngi xeeñ de ndax laa nga politique di lii xeeñ neexagul am na si ñoo xamante ni si ñoo àndoon ëllëg tey ji ay noon lañ am ñoo xamante si ñoo àndoon ëllëg démb tey démb ay noon lañ gis nañ yéen kaay bi di Le Soleil xëy fësal nataalu Ousmane Sonko Macky Sall Amadou Ba Barthélemy Dias Ousmane Sonko Barthélemy Dias ñoo ñu féewaloo Macky Sall ak Amadou Ba ñoo àndoon waaye léegi ak Barthélemy Dias ñoo ñi nga xamante ni si moo di Macky Sall xool yi ñeneen waaye fi ñu la boo xamante ni tàmbale naa baxte le témoin yéene kaay ne mbir mi moom dañuy wax rek waaye foo jaar guerre ak giita ngaas gu métti dina am diggante Sonko Macky ak Amadou Ba yéene kaay bi ne législative yooyu fi toll ni ki démb ak ëllëg daanaka mosuñoo juboo Walf Quotidien ne Macky ak législative yi billet de retour risqué risque dëgg nag la Macky Sall a def bu fekkente ne dina ñëw si Sénégal ngir campagnal askan wi na juróom-ñaari saa naka saisir nañ leen de te de bu pas Pastef Ousmane Sonko ci jamono ji en sursis la ne ndax gars yi naka xaatim nañ ab recours boo xamante jàpp nañ si moo di élection yi ah loolu moom dina doy waar ab si dañoo bëgg a considérer consolider pouvoir nag ak figure yoo xamante ni si figure de résistance dëgg lañ dal dee teg boobee jamono takk wàllu Sénégal yéenekaay bi ne le choix de l'expérience jàmm ak njëriñ ab coalition boo xamante ni daanaka dafa diversifié dañoo cuqati fii cuqati fële maanaam suppu kànja dëgg lañ dal dem sàmm sa kàddu ñoom naka pare nañu ngir troubler la paix yàq mbir mi ndax bëgg nañoo créer li nga xamante ne si moo di surprise recours yéenekaay bi ne si kanamu conseil constitutionnel taxawu Sénégal la mu bëgg rek mooy génne Ousmane Sonko ci po mi Vox Populi ci yenn élection législative yi Macky Sall ak Karim Wade la ñu bëgg mooy fintooni caxabal Ousmane Sonko tër ko daan ko dal di koy jàll waaye nag loole ndax dina yomb yéenekaay bi ne du yomb de ndax Ousmane Sonko ak ña mu ànd ak daanaka fépp nañ taxaw ngir wane gaay ne fintooni majorité rek lañ dal bëgg ci réew mi yéene kaay bi di l'observateur sol na daalam naka ngir jéema a yi ji ñi nga xamante ni si ñoo njëkk a gañe pom mooma ñu duppe woon seen petit gàlle ñoom ñooñee ana lan la ñu mujjee doon li ñu mujjee doon kay ñëpp xam nañ ko fecc ak way ak taxawalu si réseaux sociaux yi mbir mangoog ñoo ko déggandoo jàngin jëf ba ëllëg